Barcelone mu bàcci bàcci mook équipe bi la nga xam ni mooy Atlético Madrid waaye fa nu mujje bëri bukkee mbaam la ndax pour cent moom la Atlético am ci bal position 59 pour cent moom mii di Barcelone am ko benn bal ci dara nag la match boobee mujje bit ba ko ko dugal saaw Félix ka ko jox ginaar yoo xam ne yu ñor xomb la di nekk Rafinha mi nga xam ni moo raf li nga xam ni daanaka mooy passe décisive boobee ñu dugal ko tey ci xibaari ngoon yi doon naa leen ko xamal ni la ma ko gisee nii alignement boobee boobee sàppe yi jub na te militaire bi sàppe yi boo amul chance dana jaar yoon bu baax a baax ci digg militaire bi défense beeg lépp tegu na ci temps victoire bu leer bi nga xam ne kii di Barcelone am na ko nga baxtalu classement ba nag daanaka Barcelone ak séegu ci ndax Real Madrid moo jiitu am lu toll ci fanweeri poñ ak juróom-ñett ki ci topp mooy Girona am lu toll ci fanweeri poñ ak juróom-ñett ex mais Real la ko mën goal différence fanweeri poñ ak ñeent moom la Barcelone fii di dundee li nga xam ne mooy yaakaar ci boobee championnat ndax loolee daanaka am na match bu mu war a football ak Real Madrid war a football ak Atlético bu ma juumul loolu lépp bu ñu ko boolee daanaka fi mu toll nii ay point yu mu ca mën a gagné la benn yoon benn yoon daanaka kii di Sao Félix supporters yi nga xam ne ñoo nekkoon fële ca Barcelone bi match bi jeexee ñoom ñëpp daanaka dañu defum diiraan wala boog bi mu génnee ci li nga xam ne mooy deuxième mi bi ñoom ñëpp dañoo di wane ni football kat boobee ku ñu sopp ca Barcelone moom it nag célébré na bii bi boo xam ni ñëpp jàpp nañ ne loolee dafa ëpp ndax footballkat boobee daanaka Barcelone moomu ko dañ ko koo dénk te it boo amul chance Atlético Madrid bu fekkente ni woon ci prix buñ ko ko jaayul moom moomee daanaka day mujj ñibbiwaat fële ca Atlético Madrid te bu demee ci supporters yooyu jar naa lijjanti ni muy xoolee ñooñee kon daanaka Sao Félix war naa mën a yemale am feccam ah, ci Baara Mbaye yeneen information ñu ngi nii di ko togg ci El Hadji Malick TV loolee dana soxal équipe bi la nga xam ne mooy Barcelone tic tac de jeu bi ak ni mu def ba gagné ak yeneen jàngat yoo xam ne yoo am solo